jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média xibaaru marax yi ponk ci gën a fës rek délégation général bi nga xamante ne nii nag moom la nu dénk lépp lu soxal wàllug ajug màkk ga kon seen op roplaan bu njëkk ni ki tey jii nag la dem ki nga xamante ni kon moom mooy jëwriñ ji nga xamante ni moom mooy maître Sidiki Kaba moom nag am na ay kàddu yoo xamante ni kon yëkkati na ko ne matuwaay yëpp nag jël nañu ko ren ji waaye jàpp ni bu ñu dee rek wàññi vol yi nga xamante ne jot nañu dem fukk ci tey lu soxal wàllu màkk nga ba tey ñuy wax ni nag euh, ñu ngi ko jagleel rek euh, képp koo xamante ne jullit nga naam waaye tamit ci kaw nga am yenn at yi lu ca mel ni ñeen fukk ñu ne nag boo amagul ñeen fukk at yooyu faaw rek mu am lu ñu la laaj nga war kaa matale ngir mën a dem ci dëkk bu sell boobee ña yeewoo ca Tiwaawoon Pël mer nañu lool muy ñi nga xamante ni ñoom lañu tojoon euh, seeni kër ci weeru avril ba nëgëni nag ña ngay wéy di yuuxu askan woowee waaye tamit am nañu beneen jafe boo xamante ni ñu ngi koy metti mooy seen digg ak Malika ñaari commune yooyu booy xool tey ji jege na jege goo xamante ni ah, xamuñu sax ah, suuf sa fan la bokk maanaam ku ci ne lan nga am ci wàllu ah, suuf daañu addu tamit ci vacances citoyennes yi nga xamante ne tàmbali na atum 2018 lu toll ci ñetti téeméer ci million kon lañ ci fas yéene rek dugal jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ndaw ñi mi ngi dalal xel yi nag ca wàllu woowee ay activités yu bari ñu fas yéene ko amal kon ci les vacances dossier bi ñu jagleel ko nag li ñu naan tube buñ ko déggee ci wàllu musique la tube nag ñu ci bari bari ci vacances lañu koy faral di génnee ñoom waykat yooyu samp nag mooy tube daal ci yan anam la ñu koy génne ndax léeg-léeg lu ñuy fent la muy gaaw wala boog dañu koy togg ba mu ñor ñu doog koy génne tontu yi ak Ibou Diouf lay doon mbokk yi ponk yaa ngi nii yaatal gi léegi-léegi dale na jàmm ci xibaaru euh, marax yi ñu tàmbali ko rek ak ajuka mag ren jilee nag euh, délégation générale au nag roplaan bu njëkk euh, tey ji rek la daal di kon jógee fii ci ndakaaru ngir wutali kon dëkk bu sel boobee matuwaay yëpp nag jël nañu ko bu nu sukkandikoo ci di Sidiki Kaba waaye bu ñu dee xayma rek ci roplaan yu jot a dem moo xam ci privé bi ak yeneen daanaka lépp daal ci fukk la toll di ngeen dégg nag ci biir reportage bi ay audiat yoo xamante ne ñoom it seen xel daal dooree Maymuna Njaay seen lim toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom ñaari ujaaj yoo xam ni dugg nañu tey jii ci vol bi ñu duppee A 330 ñoom ujaaj yi bokk benn kàddu bi c'est la première fois may dem Màkka donc euh, ñoo ngi sant yàlla di jullit ci bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla suñu borom mu yóbbuñu si jàmm ënnuñu si jàmm y des améliorations. organisation bi euh, ni ñu ko préparé. a ah, xanaa sant yàlla lekk ak am émotion boo xam ne rek sentir rek ni ñu ngi dem ci ku tedd ki di Seydina Mohamed di ñaan yàlla na yàlla yeggale ñu dem ci jàmm ak ci jàmm ñibbisi ci jàmm. ci wàllu wér-gu-yaram foofu tamit saytu nañu ko bu baax at bi ñu ne dafa am lu bari lu yees. ci saytu seen kayit yi nga xam ne moo la ñu war a téye ndax bu ñu demee ci wér wér-gu-yaram euh, euh, du ñu am ay jafe-jafe ak ci li nga xam ne garab yu ñu yore war a tukki ak moom kayit yi mu war a àndal ñetteel bi mooy képp koo xam ne am na lay métti ñu mën la seet fii euh, taxawu la ba nga mën a euh, tukki euh, ci jàmm ñeenteel bi mooy médecin yi infirmier ak sage-femme yi nga xam ne monsieur le ministre de la santé et de sociale yebal na leen ñu ànd ak ujaaj yi ndax mën leen taxawu ci seen jamono ujaaj nguur gi ci wàllam amaloon doxu ñaxtu ñëw xool ana nan la mbir yi di doxee dafa amoon ñett condition bi nga xam ne président de la république Macky Sall waxoon na ko mooy lu jëm ci kaaraange ak confort bien-être ñi nga xam ne ñoo war a voyager ujaaj yi te mën nañ wax ne avion bi ñu gis avion A330 la comme ni ñu ko mën a waxee avion de dernière génération mooy avion bi nga xam ne euh, mu ngi réunir ay conditions yu baax pour mën a transporter suñu ujaaj yi. ren bi mu am lu bari lu ci soppeeku ujaa ji sax duñu yàgg at bi ci bërëb bu sell ba bu ñuy dellusi si vol bi njëkk mi ngi war a ñëw fii ci ndakaaru ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru ut Maymuna Njaay bërëb bu sell boobee nag bu njëkkoon mag ñi lañ daan gën di seetlu ni ñoom ñooy aji waaye léegi si amatul mag amatul euh, xale ñëpp rek dañuy dem ci dëkk bu sell boobee waaye nag ku amagul ñaar fukki euh, ñeen fukki at nag am na loo xamante ne faaw rek nga matale ko ngir mën a yegg kon ca màkk sunu naataango Fatou Bintou Konté ma nga ca màkk ajaratu Fatou Bintou Konté jot naa gise nag ak Mame Bousso Kane Mame Bousso Kane euh, ndaw la moom wax na ko rek fi nga xamante ne fa la ngir mën a yegg ci dëkk bu sell boobee nataal yu tukki ci Babacar Bèye Mame Bousso Kane la tudd moom nag mi ngi doog a am li ñuy wax fanweeri at bokk na ci ujaaj ji nga xam ne ñoo gën a tuuti te agence Firmaman indi leen fii nga xam ne moom moo di màkk lépp rek di wane ni jamono ji màkk nag dañ fiy faral di nemmeeku génération bu bees boo xam ne ay ndaw lañu. man maa fi gën a doon xale. moo tax ñu jël ma man maa ngi am 30 sama jëkkër moo ma paasal indi ma. ñoom jaaju jigéen yi nga xam ne seen ñeent fukki at matagul ngir ñu mën a dugg ci li nga xam ne moom moo di Arabie Saoudite nag faaw ñu tegal leen ay yenn sart. dañ ne ma sa at matagul kon doo mën a dugg foog ñu utal la benn jëkkër boo xam ne moo lay mën a jàllale ma soog a dugg ñu ut kenn boole ma moom. am na âge xam ne boo ko amee doo dugg biir màkk looloo tax ñu am kuñ ñu boole si enfance bi pour ñu ànd ak moom. waaw mu nekk sama jëkkër si agence bi. nekk ndaw ba pare ñëw fi nga xam ne moom moo di màkk dafa nekk loo xam ne dafa bëri avantage ñoom ujaaj yi ñu ngi ñuy expliquer lan moo ko waral. nee nañ màkk daal boo fay dem na nga nekk ndaw pour am kàttan beek yooyu moo tax ñuy jël xale yi gën kaa bëgg te xam nga ne nag fu yàlla woote moom ñëpp si bëgg mag ak ndaw a ko bëgg. kàttan baa ngi fi peut-être avantage la tamit si man avantage la si jeunes yi c'est que. Sénégal, on a tendance à dire que donner qui xale dafa teel et tout ça. Amina nag moom responsable d'agence la wante mi ñuy xamal ni ñetti at a ngi ni seetlu na ni bu ñu yóbbu ujaaj yi ñi ci bëri ay ndaw la ñuy doon. il y a trois ans de cela moom remarqué vraiment xale yi léegi dañu jël mouvance ñëw ak. loolu damay xam ne vraiment am na ci ki nga xam ne dama ko gis sax dama xaw a posé wu tuuti question ne comment ça se fait lan moo tax dama ko laaj sax ne ku la indi mu ne sama jëkkër tellement que ma gisee âge bi mu xaw ma jaaxal waaye dañuy naan alhamdulilah rabbil alamina parce que comme on dit rek diine damay naan amul xale amul mag. lii nga xam ne moom moo di aji mag dafa nekk événement boo xam ne dafa rëy ci ki nga xam ne moom moo di ujaaj bile moom bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy wax juróomeeli ponk lislaam boo xoolee moom bokk na ci li nga xam ne moom moo ëpp ci li muy boole ay nit ci àddina bile. ajaratu Fatou Bintou Konté ñu koy jaajëfal bu ah, baax a baax ah, ñu wax ah, ci tabaski ñi ñu dëgmal ak ñi nga xamante ne nag ñoom ña ngay am xel ñaar ndax tabaski bi dinañ ko def ci nam yi ñu ko bëggee ndax kat ñoom boo moyul fa ñu dëkk daañu leen fa jëlee ndax liggéeyub teer boobee nga xamante ni war na ca jaar préfet bu Pikine nag moom ma ngay daal di rek dankaafu ñooñee altine daal lañu leen appal rek ngir ñu able ci kër yooyu nga xamante ne nag ca la ñu dëkk waaye préfet ba teg na teg na ci nee nag balaa ñuy toj benn kër faaw rek liggéey bi nga xamante ni sóob nañu ko ñu def ko ba noppi maanaam lépp daal dañu koy teg ci yoon Salif soo lañ ci àndal. kër gi dara desetu fi daanaka boroom yóbbu na buntu ak paranteer ñi nga xamante ni ñoo ko luyee ñoom ñu ngi toog ba léegi di xaar seenum ndàmpaay looloo tax dañoo jaaxle jóg nañ seeni i te xamuñu fu ñu jëm ndax ñàkkum koom. ñun daal ñu ngi nii dagg nañ suñuy bortu génnee suñu bagage amagul fu ñu dugg dañ ko war a kër gi. ñun amaguñu fi ñu dugg daggit waaw ñun locataire lañu am nañ ay doom suñu xale yëpp a ngi fi metti na ñun fayaguñ ñu woon de fayaguñ ñu joxaguñ bind nañ waaye fayaguñ ñu. lu nu mel it lañ seetlu ci marché caaro yi borom place yi nga xamante ni di leen fu luye woon ñoom it nee na ñu ngi xaar li nga xamante ni mooy seenu chèque te ñoom sax nee ñu leen nañ fa jógee nu mu gaaw gaaw ndax dañ fa war a toj. fi ñu nekk état bi am na droit soxla ko ñu ñu jóg mais nañ jaar ci yoon oo nañ Euh, documents yi ñu euh, demande yëpp yóbbu nañ ko comme il le faut xam nga signé mais nañu jox ay sunu ay chèque xam nga ñu li mu nar a yàq moom xam nga kenn mënu ko wax quoi parce que tamit imagine toi foo nekk plus de vingt ans di liggéey kenn xamal la dara ngay surtout xam nga un jour viendra nii rek ñu ne leen sonn leen da ngeen fi da ngeen fiy jóge dem feneen foo xam ni doo xam tamit loolu dafa metti kilifa gi mu ngi woo gaañan ci dal di leen xamal ne duñu toj kenn kër ci kawam. si li ñu tënku mooy. respecté procédure respecté yoon te boobu bi ñu commencé liggéey ba léegi loolu la ñuy respecté. ma dalal seen xel rek ne leen bépp kër boo xam ne nii fekk nañ fa doomu aadama mu nekk locataire te ñu war koo toj te fekk locater bi fayaguñ ko euh, mun naa leen wax ne kër gu mel noonu dootuñu ko toj. le président de la république ci mbaaxam ak ci bëgg. Euh, oyofal mbir mi ci doomu aadama yi moom moo leen gunge. tuddee lu ñuy wax aide sociale au kër yi nga xamante ni seen i borom dañoo fayeeku dañoo daw bàyyi fa ñi nga xamante ni ñoo ko luye ñi luye nag ñoom jamono jii dañoo jaaxle ndaxte kër yooyu ñaare ñiy ut feeraay dañ koy songu. waxoon nañ ko sànq ci euh, ndoxteel yi ak askanu Tiwaawoon pël wooyu ñu tojoon euh, seen i kër ci weeru avril ñoom nag euh, ña ngay ñaxtu boobu ba tey ñu ne kilifa yi daal dafa mel ni dañuy tànkamlu seen i jafe-jafe janoon nañu ak xabaar yi àddu nañu nag ci leneen muy rek seen diggante ak commune bu Malika nee ñu nag ñaari commune yooyu tey booy xool kenn mënu ko xaajale li ko waral ku ci nekk rek yaa ngay am kon xel ñaar ci suuf si ndax ci commune bi la bokk wala ca beneen commune ba dañ ci teewlu ki nga xamante ni moom seen tur Omar Diop la ñu koy wax ci micro Ousseynou Thiam. tey fii ñu taxaw nii muy si nga xam ni fi la bretel bi VDN bi duggee Tivaouane Peulh depuis bi tali bi ñuulee dañoo gis ne ay promoteur immobilier rek a fiy dugg ay promoteur privé te ku ci ñëw di nga yor sa benn kayit ne état moom a daggal baay moo ma ko jox fii ci site bii dem na sax ba ay baay yoo xam ne dañuy tegloo ñaari promoteur dañuy indi baay mu tegloo ci benn site loolu nekk nag lu doy waar parce yaakaar naa état bu jëlee zone di ko ba mu koy titre dafa fekk population locale bi toog ñii di fa bay ñii di fa def ay càmm ñii di fa def leneen ak leneen kon yaakaar naa bu état titré zone boobu te mu am loo xam ne amoon droit coutumier balaa moo sedd ma sàmba wala muy sédd ma demba war naa mën a sédd askan woowu ba noppi wala ñu waxtaan ak ñoom ba noppi doog a ñëw dara teg ko seen kaw ñu wax rek ci kuréel gi nga xamante ne nag dafa sosu ngir euh, xeex euh, bépp xeetub nag euh, fitna wala boog sax léeg-léeg di sonal askan wi te loolee ñu koy faral di nemmeeku ci takk der yi ci Sénégal kuréel googu nag tey rek amal nañu doxu ñaxtu ndax ne ñu bëggatuñu kenn koo xamante ni dafay ñàkk bakkanam ñu cay tudd takk der bu weesoo loolu nag ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu daal di rek indi leeral ci faatuk kii di sekk Ndiaye Fallou seen ak ñeneen ñoo xamante ne tey jii faat nañu leen ci anam yu ñaaw te mujjul fenn dañu ci ànd ak Abi Faye ci leeral ñëpp yuuxu joytu ànd ak ñoom wax nañu leeral li nga xam ne moo dal Seck njaay bi juróomi policier dóor ba mu dee nañu leeral kaawu papsar mi nga xam ne ay policier dañ ko sotti diluant taal ko ba mu xëm ba mu dee waaye itam nañu leeral deewu Abdoulaye Timéra bi nga xam ne moo dee commissariat police bu port deewu Fallou seen étudiant bi ak ki nga xam ne moom mooy euh, moom mooy Pape Sarr euh, beneen bi mooy wax ne dañoo bëggatuñu suñu police ak suñu poste de gendarmerie yi mu nekk ay almer mu nekk ay mouroir maanaam bërëb yoo xam ne boo fay dugg da nga fay ànd ak sa bakkan waaye boo fay génn da fay ñàkk sa bakkan dañoo jàpp ne loolu dafa doy loolu na dakk dinañ xool dossier njabootu ñi ñàkk euh, seen doom ku nekk xool fan la dossier bi nekk ci wàllu tribunal xool lan maanaam fan la cangee xool euh, li nga xam ne moom euh, lañ ci war a def waaye tamit xool naka la ñuy boolee Sénégal ak ak kuréel yi nga xam ne ñoo nekk fii ci UEMOA wala CEDEAO wala ci mbootaay xeex yi euh, di wax ki nga xam ne moom mooy ministre de l'intérieur police ak gendarmerie ñu bàyyi d'accord di def lu ñu woowee maquillage maquillage mooy euh, suñu mbokk Elimane Touré dee ci commissariat police bu poor ñu ne dafa jéem a xaru suñu mbokk Seck Ndiaye juróomi policier dóor ko ba mu dee ñu ne euh, ñu bëgg a wane ne ay Samba Boy ñoo fa dugg bëggoon sàcc sàcc bi dem ba mu ñàkk bakkanam yooyu itam ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax nañu jël seen responsabilité lu mu métti métti na ñu wax dëgg Guy Marius Sagna moo wax rek ci turu euh, kuréel googee ñu àddu ci leneen muy téeméer ak euh, ñaar fukk yi nga xamante ni bokk nañu kon euh, ci conseil économique social ak environnemental mu nekk nag kuréel gu yees koo xamante ne rek kon dañu ko samp ab kon la ñu def rek ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo bootu ca boobeeb conseil njiitu réew mi Macky Sall nag moo amal lu nu mel ci àllarba ji waaye nag nit ñi bari na ñoo xamante ni umpale nañu lépp ci kuréel gu yees googee ak ki nga xamante ni moom moo nekk ci bopp bi di Aminata taal ndax am na ñoo xamante ne ñu ngi far ci APR euh, tey ji ñu ngi tudd tur bu ne naan kooku bu moyul moom la ñu dénk kon conseil économique ak social euh, dañu ci ànd ak Chérif Dia moo dikk ak ñun rek euh, ci kuréel googu ak tëraleen wi mandat wu membre conseil économique social ak environnemental jeex na fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu génn boobu ba léegi nag ñi ngi taaxirlu di xool ndax moom président de la république dina wéyalaat liggéeyu conseil économique social ak environnemental def na ko ndax signé na décret yi nga xamante ni moom moo nommé téeméer ak ñaar fukki membre conseil économique social ak environnemental ci ñoom ñu gis ci ñeen fukk ak juróom-ñaari kilifa yoo xamante ni ñi ngi jiite rek ay organisation socio professionnelle di ay leader yoo xamante ni ñoom ñoo jiite ay syndicats yéen gën a ràññee fii ci Sénégal wante tamit patronat bi ak société civile bi it am na ñu leen fa teewal ñu gën cee ràññee Birahim Seck ak Amacodou Diouf bi jiite Congad ci article deux bu décret boobu moom président de la république daal di tabbu fanweer ak ñetti kilifa yoo xamante ni nee na mi ngi sukkandiku rek ci seen xarañteef ci wàllu économie nii wàllu social ak environnemental ku demee ni ki professeur yi di Madior Diouf ak euh, Pape Demba Sy wante tamit kilifa diine gi yore parti politique di Baye Mamoun Niass ñeen fukki kilifa yoo xamante ni ñu ngi leen di wax rek ay membre associé ñoom président ci boppam moo leen tabal boppam ci décret deux mille dix huit mille quatre cent cinquante neuf mandat wu membre conseil économique social ak environnemental ci juróomi at la moom président ci boppam lan jàpp ni moom moo leen di sampal boppam buñ génnee ci tabaski gi buñ sukkandikoo ci ay xibaar mandat juróomi at boobu nag wuute ak mandat seen kilifa di présidente Aminata Tall moom ñi ngi ko tabb ci benn décret présidentiel boo xamante ni mi ngi en cours depuis atum 2013. kii Mariam Badiane dégg nañ femmes yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci benn bokk yaakaar daal di koy jàppale ak ki fi nekkoon premier ministre di Aminata Touré turam li muy ñëw bari na trop ci ñi bëgg a jiite googee kuréel li waral coow li buñ sukkandikoo ci ay borom xam bokk na ci. ci juróom benn milliards yi nga xamante ne moom mooy budget conseil économique social ak environnemental te njiit day am fon politique yoo xamante ni ay fukki fukki million la rax ci dolli kuréel ga waa ARMP di autorité de régulation des marchés publics du ko saytu. waxoon nañ ko sànq ci ponk xibaar yi ak vacances citoyennes 2018 yi nga xamante ne nag daal di nay tàmbali yooyee nag vacance ñu ne lu toll ci ñetti téeméeri million ci suñu koppar moom nag la ñu ci fas yéene dugal lépp rek ngir nag yëngu yiñ ci fas yéene amal nag daal di jaar yoon jëruñ yi nga xamante ni moom la ñu dénk nag wàllu ndaw ñii di Pape Gorgui Ndong àdduna ci wàllu woowee ak matuwaay yi nga xamante ni moom la ñu jël ren ji ñu teewlu ay kàddoom ci micro Alassane Ba programme yu bëree bëri yoo xamante ne tey ñoo ngi koy def lu jëm ci ay ferme agricole yu jëm ci promotion des jeunes lu jëm ci financement des jeunes yooyu ministère bi dina engagé service am engagé ndaw ñi ñu dem xooli expérience yi nga xamante ne defoon nañ ko ci vacances citoyennes yi daaw lañ leen financé woon laaj na vacances citoyennes yi ren bu ñuy dem dinañ xooli ñooñu fan lañ toll ci bu seen boobu liggéey nan la ñuy def tey bu amee loo xamante ne dañ koo war a jubbanti ci biir territoire bi yëpp dinañ ci organiser ay formation yu baree baree baree bare yoo xamante ne tey am na partenaires yoo xam ne ñoom ñooñu ñu ciy accompagner pour une formation d'une grande masse bu mag a mag loolu bu weesoo ministère bi nag dafa am fait marquant innovant boo xamante ne moom lañ duggal ci wàllum vacances citoyennes yi mooy vacances citoyennes activité gouvernement la chaque département ministériel identifié nga ci li nga xamante ne moom lañ la dënk lan nga ci mën a def activité boo xamante ne dina am porté citoyenne am nañ bébét ci at ci at mii ñu fexe ba li ñuy jagleel construction citoyenne ñu fexe ba waxtaan ak gouvernement bi waxtaan ak acteur yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk yépp ba ñépp mën a d'accord ne tey dinañ initier benn journée nationale boo xamante ne tey dañ koy jagleel citoyenneté ak volontariat mangook lu soxal euh, vacances yooyu nag ndoxteel yi tey jii rek lañu ko amal ca diwaanu euh, Ziguinchor fii nag euh, ci Ndakaaru lañ ko fa yéene rek jeexalee ñu wax ci leneen ci wàllu ko wér-gu-yaram ak kinésithérapeute yi nga xamante ni ñoom ñoo taxaw temm rek ngir nag ñu gën leen a dimbali ci seenub liggéey tey jii nag ab division rek la ñuy sàkk ñu amal ko ngir nag métier mi gën a ñoŋ waaye bëgg nañu rek ab lëkkaloo seen diggante ak cardiologue yi ndax léeg-léeg am na ci yenn jàngoro yoo xamante ne ni faaw nag kinésithérapeute bi daal ci teew ngir mën a xam lan moo cay cëram. taxawu yenn jàngoro yi ci wàllu xol du liggéeyu cardiologue bi kese kinésithérapeute bi tamit am na ci wàll moo waral sax ñoom ñii ñuy sàkku rek ci cardiologue yi ñu gën leen a gindi ci yenn yi. cœur muscle la xol waaw donc ni muy baat rek donc soxla na par yenn boo opéré nit ci yenn opération yi. c'est-à-dire kër bi doole bu mu doon am pour mën a def yooyu day bàng en même temps aussi zone bu mu nekk zone pulmonaire la daa di nikki ki day noyyu foofu donc foofu yëpp dafa am lu ñu wax ampliation thoracique ci biir ampliation thoracique boobu am na lu mu war a emmagasiner ci air parce que air boobu di dugg day indi ay oxygène oxygène boobu day ñëw ci poumon yi sang bi jël ko ñu échanger donc loolu lépp dafa ci am lu ñu bëri loo xam ni da ciy sooxe parce que du demee noonu nag il faut nga accompagner ko pour rôle bi nga xam ne moom la doon def ba nga xam ne dara jotu ko mu mën ko def. ngir liggéey bi sotti nag faaw itamit ñu xoolaat jumtukaay bu baax a baax gën leen a gunge ci seen liggéey. jumtukaay yi nag bon euh, matewul comme ni ñu ko bëggee laa moom il faut le reconnaître parce que li ñu gis ci circuit sanitaire mooy li wax rek nit ñi par exemple saa yi bu nekkee circuit sanitaire yi bu ñuy jënd ay équipement c'est à la tête du client cest à benn professeur yi ñëw rek gis benn matériel bu high tech bu nekk en même lu muy coûter kenn xamul lu muy doon. mu bëgg ñu jëndal ko ko mais comme yenn directeurs yi aussi dañuy am complexe ci ñooñu ñu jëndal leen loolu alors que loolu du am rentabilité du am njëriñ. ay bis yi kinésithérapeute yi amal jaare nañu ci nag wax seen i jafe-jafe bokk na ci ñi nga xamante ni ay maaman lañu ubbi rek seenu cabinet. te xamuñu dara ci kinésithérapie. tey jii boo demee même ci site yi da nga ciy gis ay yu nekk yoo xam ne tey jii ñun ñi nga xam ne sax ay professionnels la ñemewuñ koo def donc loolu day am lu muy yàq te day yàq ci ay image te loolu comme autorités yi nee nañu ñoom ñu ngi ciy xeex pour ñu régler ko je pense que c'est extrêmement positif loolu am solo la. profession que ci opito yi ak ci biti ñiy pratiquer massage mu doon ñoo xam ne dañoo yore seen diplôme donc ñu am autorisation pour seen lim nag toll na ci téeméer ak ñaar fukk ci kinésithérapeute ci Sénégal téeméeri kese ñoo nekk di liggéey jamono ji am na ci fukk ak ñaar yoo xamante ni tàggat nañu leen ba noppi waaye amu ñu am xëy lii yépp nag ñu war cee indi saafara ndax ba tey am na ci ay diwaan yoo xamante ni ci Sénégal amagul ay kinésithérapeute mangook ni ñu ko waxee rek euh, dossier tey jii di gëstu bi nag ñi ngi ko jagleel euh, tube euh, tube nag bu nu ko déggee ci wàllu musique la ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy waykat yi di ko faral di génne lu ca bari bari ci jamonoy vacances lay nekk waaye laaj bi samp mooy ndax tube dañuy jékki saa rek daal di koy fent ci saasa wala bokk lu ñu togg ba mu ñor la ñu doog koy génnee tontu yi ak Ibou Diouf. ci jamonoy vacances jamonoy tàngoor. xale yi di faral di dem ci plage yi kay yeneen bërëb yi ngir féexlu jamono joojee nag ñuy jëfandikoo lu bari wallu musique ba tax na sax ñu naan jamono ji ndax mënees nañu wax ni tube d'été maanaam ay morceau yoo xam ne rek foo dem ci xew-xew yi man ko fa déglu. waaw bu ñu ko jëlee ci euh, euh, niñ ko niñ koy woowee dañuy référé wu ci euh, lambada bu kawma ak karakos ba mu ko xewalee ba léegi. si lañu ñuy commencé di wax tube d'été tube d'été euh, boo demee fu mel ni Europe dañuy wax ne da ngay am sponsor bu mag ak télé bu mag ak réalisateur bu xarañ pour am tube d'été. morceau yooyu nga xam ne rek dinañ ko faral di dégg ci rajo yi ci télévision yi wala sax ci boîte yi plage yi waxi noppi loole nag tax ñuy laaj ñi nga xam ne seen xam-xam da ci màcc ndax jamono ji am na ñu gën a fës. mooy Diabira euh, bu Sidi Diop. mun nañ noter également Pape Diouf. Euh, dina ma rey bu Pagaye Mbaye ak euh, kii di Birame. ñoom Wally Seck et truc. si ñoom Mabo aussi li nga xam ne moom la ñuy def avec li ñu tuddee wolof bit aussi. ñoom ñëpp seen tube yi actuellement gars ñu ngi koy exploité parce que mënoo def sa playlist wala nga def sa émission ba pare te duñ la laaj artistes yooyu. ay morceaux yoo xam ne saa yoo leen dégloo bëgg a dog fecc ñu bëri gis ne te ndorteel ba neexul woon. mais dañuy dem rek ba sax dàkk ci nopp nit ñi. vraiment dañ koy jagleel ñii di animateur bande FM bi ñii di animateur bande FM yi mun nañu provoquer euh, tube d'été. au bi mun nga déglu benn Gilles Guèye wala Youssou wala kii au début naa morceau bi neexul mais matraquage bu si nekk rajo yi tele yi di ko teg guddi ak ba ci réew moom tuuti da la si neex nga jékki-jékki leneen neexaat la si nga jékki-jékki morceau bi en entier neex la. liggéey boobee ñuy faral di rafetlu ñii di musiciens yi wala sax compositeurs yi dinañ ci am liggéey bu rafet ñu gis ne rek saa su nekk dinañ woy yooyu la morceau ci béréb yi nga xam ne dañ fay faral di féexloo. day dem ba xam ne mun na am ni mais lu ñuy wax tube lu si ëpp bu du at wala at teg tuuti nga gis kenn du ko déglooti te bari na fi ay tube yoo xam ni. du ñu gudd fan. en fait c'est pour man du artistes yi defatuñu artistes ñu ngi def ba léegi mais léegi problème bi mooy artistes yi bëri nañ et tout ñoom ñëpp ñu bëgg génneendoo en même temps consommation bi ak ah, jàllale bi du yomb. mu dem ba benn moment dafa mel ni Sénégal comme ni ma la ko waxee léegi. déglootuñ musique ak bopp mais tànk lañ koy dégloo musique boo koy déglu da nga war a fecc te alors que am na musique yoo xam ne mën nga ko déglu te doo fecc. artiste bi lu ko war moo liggéey liggéey boo xam ni kee ko war a déglu bis bu ko dégloo xam ni kii liggéey na du question mbooloo. artiste bi da ngay njëkk ne man artiste laa. parce que loolooy wax ji tamit dañuy wax qualité wax qualité waaye tamit qualité qualité yóbbuwul kenn fu sori de ci dëkk bi. ñu ngi ci jamonoy vacances askan bi rawatina ñi gën a féet ndaw bëgg a fexeel seen xol béréb yooyee ñuy faral di teew musique am fa solo lool ñoom nag jamono ji dañu gën a soxla maanaam musiciens yi jox leen loo xam ne rek saa suñu toogee mën a fàttaliku seen vacances atum 2018. jërëjëf Ibou Diouf mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaaru maraxi jaajëfal leen bu baax a baax ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi ñëw ngir xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf